يا الله بالمصطفى سيدي الله وبي خليل فكيلو خرباح كتير بناء المسكية في القوارخ المكية سرين محمد لمن جوب رضي الله تعالى عنه نينا بوكو نتي ci xarbaaxi Serigne Touba dafa amoon kenn ci taalibe Serigne Touba yi ku ñuy wax Buuna Fall dëkkoon gànnaar bokk ci waa garag moom buune mii nag ab jàngkatu xasida bu mag la woon sëñ Mat Lamin nee na keroog bi buuna faatoo sëriñ Tuubaa da leen ne buuna de sunu borom defal na ko yool ak tuyaaba ak teraanga joo xam ne bu demee ca armeel ya de mbooleem ña fa fekk góor ak jigéen danañ ca bég lool mbégte moo xam ne mësuñu koo bég mukk sëriñ Tuubaa misaal ko ne leen buune de daa mel na rek gan gu tedd goo xam ne dafa dem ci barab buñ ko soppee lool te fonk ko lool ñu di ko waajal mboolem xeeti bernde yi dal ne ku ne xam na ne de su boobaa mboolem ña fa nekk ñëpp dinañu bég ca bernde ya ñuy berndeel gan ga kon foofu sëriñ bi dafa leen doon leeral rek ne mbégtem ñu nekk ca armeel yooyu ñu denc Bouna Fall noonu rek lay demee mooy ci ñoom ñëpp lay neex sëriñ Mat Lamin nee na bi Serigne Touba waxee lii ba noppi nag dafa daal di génne mbubb mu weex tàll daal di ne mbubb mii de yonent bi sallallahu taala alayhi wa moo ko joxe nee nañ solal buuna mbubb mi te dencaale ko ko ci bàmmeelam mu ne sëriñ Touba nee na ginnaaw loolu nag sëriñ bi dafa laaj sunu borom ne ko xéewal googu ak mbégte mu rëy mu nga xam ne moom la waa armeel yi nekkee ndax loolu day law ci ñi fa tëdd ci sama njaboot rekk la yem nee na sunu borom tontu ko ci alxuraan ne ko wa inna lakum fil an'ami la ibratan nasqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saayigan lishaaribin kon day mel ne sunu borom da koy jox misaal ci ne ko mbégte moomu de ni muy demee day mel ne rek boo ko doon misaal ci ak jur ak ni leen yàlla bindee mën a boole ci seen biir lu mel ne deret ak nefare ak ngaanuwaay ak sébarit lépp nekk ci seen biir te teewul sunu borom ci xereñam dina fexe ba doomu aadama mën a jariñoo jur googu ratta ca soow mu sell te set wecc te dara du ca jaxasoo ak morom ja kon mel na ne sunu borom day xamal sëriñ bi ne ko xéewal yi ak mbégte mi ci sa njaboot ga fa nekk rek ci ñoom la yam ñoom ñi nga xam ne dañoo gàddaayee ci barab yu wuute bàyyi seen lépp fekk si sëriñ Tuubaa jébbal ko seen bopp te yàlla rek tax ba wuy ji seen borom radiallahu taala anhum ñoom ñëpp nag ak barab yu ñu mën a nekk donte sax nekk nañ ci barab yi wuute teewul yàlla ci kàttanam ak xarañam dina leen sepp ci nit ña defal leen la mu leen di defal ci ay xéewal ak mbégte sëriñ Mat Lamin mu ne ku xam nag dëgg sëriñ bi lii ma laaj boroomam ak li ko boroomam tontu nga xool jamono yi nga xam ne ci la xew-xew bii di amee kon digg yéemu ci yàlla lool ndax booba sëriñ Tuubaa mi ngi woon njaareem mu doonoon jamonoy peste bi te booba njaareem kat barabu kéefër la woon maanaam ña fa dëkkoon ña fa ëpp amuñu woon diine bi mbas mi amee nag tubaab yi dañ daan def ñi peste bi dal ñu leen di ber ci barab maanaam mooy liñ naan quarantaine te buñ leen di quarantaine nag jullit yi ak yéefar yi ñëpp dañ leen di boole rek ci benn barab nga xam ne seenu lekk ak seenu naan lépp genn lay doon ñooy bokk lépp te bes bu set lu ëpp fukki nit dinañu faatu ci mbas mi ci diggante jullit ñi ak yéefar yi ba mujj sax ñi doon denc neewi mënatu ñoo wutal kenn ku ne bàmmeelu boppam moo dañ daan gas bu gu rëy ba mu xóot di leen ca suul te buñ koy defit duñ leen sax nangoo jege ak buum daal lañuy jël rek raccantal ko ci seeni tànk di leen diri ba ca pax ma ñu tàbbal leen ci biir buñ ca suulee nag lu mat fukki nit dañuy daal di jël tuuti suuf rek sotti ko ci seen kaw ba mu muur seen jëmm waaye du tax ñu suul pax buñ defee noonu su ko defee ci ëllëg sa ñu defaat lu ni mel buñ amaatee lu mat fukki nit takk leen ci buum dugalaat leen non pax ma defaat ca suuf sa ba mu muur seeni jëmm noonu daal lañ ko daan jàppoo ba kàmb ga fees dell ci ay jullit ak ay yeefar ñu koy soog a suul te lii nag diirub antipeste bi noonu lañ ko doon defee kon nag xew-xewu mbas mi sëñ Mat Lamin Jóob di wax daa gën a leeral xissa bi gën a leeral loolu sëriñ bi ne moom la ko sunu borom tontu ci ak njabootam ndax jëmmi pax mi señ Mor Lamine Diop di wax boo xoolee di nga gis ne ñu baax ak ñu bon ñëpp lañ ciy boole suul waaye loolu it li muy metti metti teewul sunu borom ci kàttanam ak xariñam dina seppi ruuxu njabootuk Serigne Touba ca ruux yi yéefar yañ fa nekk ndool laabal leen defal leen ay xéewal ak mbégte ba noppi nag xéewal googu mu yamale ko ci ñoom képp Serigne Mor Lamine mu ne looloo tax boo seetantalee bu baax sa pas-pas ak sa kóolute dina dolli ko bu baax ci gaa yi yàlla yi yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne seen jort ak seen pas-pas day rafet saa su ne ci wàllu yu yàlla yi ba duñ diingat mbaa ñuy wer di kenn ci ñoom sëñ Mat Lamin teg ci ne kéemaan gii xewoon ci buuna nag am na geneen karaama gu koy gën a dëggal mooy keroog bi nga xam ne ku ñuy wax Muhammadul Xayri faatu na biñ ko dencee ba noppi sëriñ Tuubaa daf maa woo laaj ma ne ma Muhammadul Xayri ñan la dendal barab sëñ Mat Lamin nee na ma ne ko Mafatim loola dendal ak Basiiru Sise Jaaxa ak Maxtaar Jaane nee na bi ma waxee loolu sëriñ Tuubaa sëriñ bi da koo rafetlu lool daal di ne ma négal ma laaj sama borom ana ñooñu luy seen mbir sëñ Mat Lamin nee na bi sëñ bi defee loolu dafa ubbi kaamil bi daal di yem ci li sunu borom di wax naan nuurun ala nuurin yahdillaahu li nuurihi man yashaa kon sunu borom da koy xamal ne muhammadul xayri moomu kat mbiram ak ñooñu day mel ne leer gu ñëw fekk si ak leer te sunu borom nag mooy gindi ku ko soob ci ak leeram nee sëriñ bi daal di ubbi kaamil bi wan ma aaya bi sëñ Mor Lamine nee na ma sant ca yàlla lool sant ko moom sëriñ Touba moo ne Mouhamadul Xayri moomu nag mi ngi faatoo fii ci njaareem ci guddik ajjuma noon juróom-ñaari fan ci weeru rakkaati gàmmu ci atum 1340 muy 1922 yàlla na ko yàlla doole xéewal ak yërmande fa mu nekk ak mbooleem ñam fa nekkal ci barkeb sëriñ ونقصد وهب لنا كل ما نختار يلا